que sommes feuille de route. am na solo au suivant hmm. Yankoba Kenen ki ci top moy Cheikh Tidiane Djey ministre de. de l'assainissement et de l'assainissement. Euh, docteur Cheikh Tidiane Djey, euh, un cadre aussi euh, c'est un bon administrateur mën na conduire euh, politique bu ko mën ci parce que ministère tu t'entoures d'un personnel technique de conseillers techniques et de direction. parce qu'il y a la direction de l'hydraulique la direction de l'assainissement, hmm. Vous on hydraulique assainissement c'est beaucoup de problèmes C'est beaucoup de milliards aussi parce qu'il y' a un plan décennal de lutte contre les inondations boo xam a Macky plus de 750 milliards boo on évalué mais il muy a annoncé message à la nation que y a un plan décennal de lutte contre les inondations te évalué a def 777 euh, euh, milliards quelque mmh. chose comme ça. Mmh donc lolu je crois que dafa laaj état des lieux dafa laaj càmbar ñu xol lan lañ ci def bala ñuy envisager un programme de lutte contre les inondations parce que fii nawet bi je crois que nous nañu éclaircir lu bari assainissement tamit bo xolé une ville comme Touba en matière d'eau et d'assainissement nous ñaari ndox a leen sonn ndox bi ñuy naan ak ndox bu bon bi donc euh, lolu je crois que le régime yi fi jall yëpp diggée nañ ko té réussir pour matale ko c'est pour matale ko. d'accord plus maintenant l'hydraulique rurale parce que baykat yi dañu soxla ay forage pour mën a Nord noor dañu soxla ay forage pour am ndox parce que am na ay dëkk yoo xam ne dañuy rooti fu nekk unité pour gas forage foreuse am na ay foreuse yoo xam ne yu jàppandi la bu ñu jàppalee ñi nekk ci profession parce que bëri nañu ku ci nekk dina mën am marché donc ku ci nekk dina mën a ci département bu nekk créer un mini forage wala un forage agricole et euh, de consommation pour que nous ayons accès à l'eau mais attirer cette attention avec nous ci un projet hydraulique si euh, seawater desalinated system parce que fii ci Cap euh, Mamel dañu installer une usine de dessalement d'eau de mer c'est-à-dire que nous la ñuy dindi xorom xorom bi ci ndoxam pour mu nekk ndox ndox bu lay bu ñu mën a naan. bu ñu mën a naan je crois que Sénégal soxlawuñu loolu. parce que 23 milliards de mètres cubes ci ndox ñu ngi koy xëpp géej chaque année pour dex bi bañ a déborder donc te ndox moom mënoon nañ ko irriguer mënoon nañu dekkal ay projets yu mel ni canal du wala canal du Baol pour mu jote Touba d'ailleurs ak ak ak côté yooyu mais pour mu suuxat mbay mi am nañu nappe phréatique maanaam boo gasee da ngay jot ndox dëkk bi yëpp Sénégal yëpp foo gas di nga jot ndox mu neex nag tamit. Lors, il y a une solution que vous avez un projet qui est un milliard pour dessaler l'eau de mer. Dessalement eau de mer, bonne conséquence les, les, les, les, les Indies. C'est-à-dire 20 km à la ronde. Moi, rayon, mais le diamètre donne donc 40 km. Okay. Cercle de 40 km de diamètre. Il faut que vous ayez un peu Parce que si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Donc, vous saturé en sel. Vous avez un peu de temps bépp xeetu jën bu nekk foofu dafay dee te te au large des mamelles ay zone rocheuse la ay xeer la xeer yi ci la jën yi di jur donc zone de reproduction la boo xam ni euh, extra salinité boobu da koy remettre en cause donc projet boobu bëgg naa ñu càmbar ko xool ñan ñoo signé contrat yi ñan ñooy bénéficiaire ba noppi ñu reprendre l'étude d'impact environnemental parce que dafay menacer l'écosystème marin kon kooku def un dossier bu ko yóbbante ñu jàll ci solo merci hmm. beaucoup. au suivant Alioune euh, John, ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire. Moi, je tamit xaw pas mais je fais confiance à l'équipe qui l'a désigné. D'accord. mais je euh, boo euh, gisee euh, ministère de la microfinance de l'économie sociale et solidaire. Mhm. je crois que nous nañ ko baaxee benn jigéen tamit. Mhm. pour yokk li mu jigéen dans ci gouvernement remarque boobu rek laa ciy def. am na am na hmm. solo keneen ki moo di Amadou Moustapha Sare Sare, mhm. ministre de la formation professionnelle mhm. waaw sama xarit sama c'est mon frère donc je kay féliciter au passage di féliciter ñep nak aussi parce que Girassi aussi c'est mon frère mhm. euh, Biram Souley aussi c'est mon frère donc ñom ñep mang leen toute l'équipe gouvernementale ma débat parce que là on waron a commencé sax mais moi particulièrement sama sama sama sama nit la donc euh, moom formation moom moo yor au niveau de PASTEF. moo yor l'école du parti. d'accord bu mu tuddee Cheikh Anta Diop bi nga xam ni ku mu jege la inspiré wu la ku roy la donc moom boo ko euh, formation professionnelle jox nga ko lu mu lu mu mën a liggéey et c'est c'est une très bonne chose et am nañu yaakaar ci ni dina dina doxal affaire yi euh, normalement. Amna mhm. solo alors keneen ki ci euh, topp moo di Daouda Ngom ministre de l'environnement et de la transition écologique. waaw mom tamit euh, lu mu jàng la lu mu xam la te nit ñi xamuñu ko bu baax donc mom aussi am nañu yakar ni dina doxal ni nim ko waré. donc li day wane rek ni. Ce n'est pas un gouvernement politique. C'est un gouvernement de technocrates, de compétences, de ressources humaines. Donc, euh, du gouvernement de récompense ou de partage. C'est un gouvernement de travail et d'efficacité. Donc, nous avons Yakar Donc, étude d'impact environnemental, bon, affaire ndox ministère de l'environnement euh, d'un interpellé parce que mon moi, moi, parce que Cheikh Diandier hydraulique mm-hmm. mais environnement il faut war avec avec ministère y compris mine pétrole gaz industrie y day ministère de l'environnement ministère ministère bu am importance parce que dafa transversal comme économie finance d'accord am solo mm. alors keneen ki ci euh, top Mabouba, Mabouba Diagne ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage mu donne lu am solo aussi waaw qui c'est un capitaine d'industrie c'est quelqu'un qui a déjà réussi dans l'agriculture et l'élevage. Il a des fermes je a des publicité. Mhm. mais il donc réussir dès lors d'Europe nous avons dañ fa doon dem di usine créer usines produire millions de poulets par an élever milliers par an ba noppi di bay di transformer di defar ay grandes surfaces ay supermarché ay endroit de stockage de conservation Bonopi noppi di former ay nit ay nit jogé nañu jël ñibbisi nañu diaspora ñeu liggéey ci ay ferme suñu né ferme nak ferme avicole ganaar ci la bok, ferme bovine ay nak ak yoy ci la bok. donc yoy yep ba am ferme de reproduction manam nen bi nga xamni da fay toj pour nek dañ koy importer lu bëri li ñu daan importer moom am na lu bëri loo xam ne mu ngi koy produire fii loo xam dafay wàññi importation bi loolu à titre personnel la moom ba noppi dafa xam finance liggéey na ci ay banque yu mag yoo xam ne dafa doon administrer ay portefeuille ay pays am na benn banque bu nekk Afrique du Sud boo xam ni administrer na fa six dëkk ak benn banque bu nekk euh, Suisse je crois non non Barclays administrer na fa neuf portefeuilles neuf de yu yu yu c'est un praticien de l'agriculture et de l'élevage parce que ministère de l'agriculture moo élevage normalement Kogo, je crois que c'est la personne habilitée pour moderniser son agriculture parce que product, hier bu rafet la l'eau, mais échouer échoué le dimensionnement et la gestion dimensionnement parce que il y ay 20 hectares de pour dole baykat bi mënu gérer 20000 hectares mm-hmm. euh bonopi baykat du propriétaire du sol de obligés nek ouvrier agricole day nek employé ci ferme bo xamné état privé mais si fekké ni dañu réduire dimension de 10 hectares 5 hectares ben groupement bokk groupement d'intérêt économique wala euh, section villageoise ñoñu dañ ko propriétaires gérer propriétaire du sol ñu defal les titre de propriété nga avons une dañu am garantie bancaire ñu encadrer leen équiper leen pour ñu am ndox am clôture am am ay ferme manam ay poulailler ay ay ay fuñu yéré sen seen ak yeeg ñom dinañ mëna produire richesse ba noppi dinañ nekk propriétaire donc lolu moy feuille de route bi normalement euh, je crois que mom dina mëna inspirer ay modèles yo xamni dañ koy mëna appliquer de façon très pratique et très rapide parce que xamna métier mom donc mën na yaakar ci mom ni li nga xamne modi conseil local bi dañ ko mëna jëmmal bu euh, baax baax ci sénégal mais bien sûr parce que mom déjà son souci moy ñun pour défar ay aliments dañuy importer 450 000 tonnes de maïs mhm. kon maïs bi il faut que ñu bay ko lolu bokkon na ci objectif product mhm. euh, domaine agricole itato bi ma doon wax la 100 000 tonnes lañ ko sasson mhm. xam bu exporter 450 000 tonnes ben ben dak war a 100 000 tonnes rek kooku résorber na lu Bunyi amé kardak yu produit kon ek 100 000 tonnes, kon day résorber Si légui nak buñu amé politique bo xamni day jëm ci je crois que euh aliments bétail aliments poussin ganari yépp base bi à 80% maïs euh, mais même PDS programme de gouvernance Ablaye Wade gisso euh, insigne PDS mbok la maïs. <laughs> maïs la maïs c'est très important parce que li ciy bruit. dafa bëri. Mhm. maïserie sax ay maïserie sax war nañ ko créer fi mhm. ay usines y xam des fabriquer ay produits dérivés de maïs war nañ ko créer pour pour euh, mu am ay filières. Mhm. ñu jëm ci transformation. donc moom am na vision boobu déjà gis na ni dañuy importer plus d'un million de tonnes de riz donc riziculture moom appuyer pour ñu yokk qualité suñu pour ñun ñu mëne ko consommer parce que ñun préférons préférer riz importé bi parce que c'est de meilleure qualité. Le traitement ak conditionnement rek la. Mhm. donc euh, défaut yu nekk fofu dina ko mëna dina résorber donc na mëna jappalé le secteur bi bu baax baax parce que lu mu xam la. amna solo mhm. alors keneen ki ci top Sy ministre de la santé et de l'Action sociale. waaw moom tamit euh, c'est un professionnel de la santé euh, ku xam secteur de la santé donc euh, c'est un un professionnel de la santé donc c'est des des figures qui ne sont pas politiquement marquées rupture bi rupture bi d'abord dans le nombre 25, mais dans les profils aussi bon coalition mais faut mettre les profils qu'il faut parce que il y a le défi du développement

Maïmouna Djei, ministre de la famille et des solidarités. Mon femme c'est une sœur Je euh, ngi félicité féliciter aussi mhm. euh, donc je euh, dina au moins les femmes dans le gouvernement.